AFT TV ምንድነው? ህክመቱን ይሁን ህክመቱን ይሁን እክሰን ሳሊዩ ሲ AFT TV ምንድነው? ህክመቱን ይሁን ህክመቱን ይሁን እክሰን ሳሊዩ ሲ أعوذ بالله من الشيطان في كل موضع وفي الأوطان بسم الإله وهو الرحمن وهو الرحيم قاد للأمان alhamdulillahi wa salla abada ala alladi bihi lana alhuda abada sayidina muhammadi wal ali wa sahbihi dawina walil wali laqil lisani waxlulan minhu lhuqad waj'alhu dakiran wa shakiran abad waj'al kalami rashida wa murshida wa fikrati nawir wa qalbi arshida anta allazi allamta luqmana alxikam faliyahab bil mustafa xayra shiyam assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh